madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun munjin min sunubin wa min sulmi ma la ani bi nabi kulla fasidin wa sirtu bi abdan xadiman bila xammi min allahi rabbil arsi abqi salaatu bi taslimi lil mustafa almuji lil yammi billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim raditu anil mawla taxalal la si rabba fu aadi wax naa ni wa akrim fi rabba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen ñaanal di sakku ci ñaan ñu dellu siwaat suñu jataay bi ñu leen di amal fii ci 24 actu ñu seen émission bi ñu tudde madinatu ilmi leen koy amal ayu bis ku jot di ko amele fii ci 24 actu di ci jàngat ak di ci waxtaane lépp lu aju ci diine ak lu aju ci actualité ak lépp loo xam ne lu am njariñ la xam ngeen ne bële nag ñu ngi waxtaane woon ci saxaaba yi lan waxtaane tàmbale woon ubbi ci bunt bi ñu waxtaane saxaaba yi nag ñu ngi ci jiitaloon Seydina Abu Bakar radiallahu tey ji nag ñu bësee teg mbokkam mi nga xam ne ab seexam la koo xamante ni ñoo bokk nekkandoo woon yaroo ci kippaaru yonante bi muy ci Seydina Omar Seydina Omar ku nekk xam nga xam ne ni la meloon ni la ko yàlla defoon ci dëgër defoon ko ci dëggu defoon ko ci jub defoon ko tamit ci ñeme responsabilité saxaaba yi nag wax naa ne ñoom yonent bi sallallahu alayhi moo leen yar ci yarin wu mag woo xamante ni moo leen jàngal lépp lu mu xam ci diine ci yonent bi lañ ko xamee yonent bi nangu woon leen seen ànd ak moom jaayante ñu bokk ci Seydina Omar mi ñu waxtaan ñu bokk ci xulafaa raasidoona bokk ci ñi nga xam ne toog nañ ci xalifa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñeent ñu maandu ñu jub ñooñu nga xam ne ñoo wutu yonent bi moom bokk na ci Seydina Omar nag xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko magee lu bari lu toll ci fukki at wala fukki at yu manqué mage nag ko ñu muy dikk ci lislaam yi tamit xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa daf daan ñaan ci yàlla ñaan na omar yàlla na ko yàlla dugal ci lislaam omar ak abo jahlin mooy abo akab ñaari omar yi yàlla na li yàlla dugal kenn ci lislaam ngir mu dëgëral ko ndax boobu néew nañ doole yàlla gindi seydana omar mii nag ibnu xataab mu dugg ci lislaam bi muy dugg ci lislaam mu ngeen ne jamono yooyu kuy dugg ci lislaam danga koy nëbbu danga koy nëbb nëbb woo yéeme waaye nag amoon na kenn koo xamante nii ci màkka ku mënoon a tas xabaar mu dégg rek information fu mu ko dégg dem tas ko nga xam ne lu mu yëg rek loolu mooy kiyam bi Seyna Omar di dugg ci lislaam dafa dikk ba ci moom mu ne ko xam nga ma mu ne ko ante Omar Omar ne ko sa doon laa ilaha illallah sa doon na Muhammadu rasulullah mu ne ko ah Omar dugg na ci lislaam mu daal di xëy wër dëkk bépp fu nekk mu dem fa wax na omar dugg na ci lislaam omar dugg na ci lislaam dugg na ci lislaam bi omar ya sallallahu alayhi omar duggee ci lislaam wan ko li ci omar jublu woon mooy bëgg ñëpp yëgandoo ko bi omar duggee ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am mbégte mu rëy rëy ndax xam ngeen ne lislaam ñaar ñi biñ duggee ci lislaam ci la lislaam tàmbali di am kàttan di am doole yonent bi bëgg muy Seydina Omar ak Seydina Hamza ndax ñoom danoo doonoon ñu dëgër a dëgër yàlla dogal Omar doon koo xamante nii tamit ku rafetoon jikko la waaye ku dëggu woon la ku dëggu ci ay waxam ku dëggu ci ak ay kàddoom ku dëggu ci jëfam doonoon ku ragaloon yàlla tamit xam ngeen ne bi mu duggee ci lislaam yonante bi dajale na saxaaba yépp ne leen yéen jullit yépp kenn ci yéen sa ngëm du mat lu dul maa la gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la say doom mu leen waxee loolu ñoom ñëpp ñu d'accord Omar daal di toog moom xalaat ne ko yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay ba des man yonente bi ne ko déedéet loolu matagul de Omar xalaataat tuuti ne naa ci yàlla fii ma taxaw yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma sama bopp yonente bi ne ko sa ngëm mat na Omar daal di tàmbali nekk ak yonente bi ñu daan nëbbu lislaam Omar ne leen yonente bi ginnaaw du ñoo nekk ci dëgg mu ne ko waaw mu dem ci Seydina Aboubacar nag ñoo nekk ci dëgg duñ jukk woote nag nit ñëpp gisandool yonent bi ne Omar da ngay def ndànk rek sallallahu alayhi wa sallam ànd ak Seydina Omar ci noonu Omar doonoon koo xamante nii tamit yonent bi daana diisoog saxaaba yépp ndax alquran moo ko sant waaye ki mu gënoon a diisool di gën di xaweccoog moom xalaat muy Seydina Omar ndax Omar yàlla da ko defoon xel mu ñëw doonoon tamit ko amoon fit ku ñeme woon dëgg tamit yonente bi sax bu ma sànn di werante moom yent di waxtaan ak moom ci xalaat Omar yenn saa yi jox ko dëgg yenn saa Omar ne nii la yonente bi ne nii la waaye ay alxuraan wàcc ne Omar li Omar wax noonu la yonente bi ànd ak moom Omar se yonente bi salaa salaam daana wax ne bu fekkoon sama xeet bi dina am ku ci doonaat yonent sama ginnaaw ma ne Omar la ndax ci jikko ju rafet ak ñaw ak xam bu baax a baax amoon xëy ba nag nit ñi ragaloon ko lool mas nay dox ci mbeddi makk yi wala madina xale yi ndaw yu toog di fo xale yi di fo am ku seen omar xale yi daal di daw ñoom ñëpp ñu daw daal ne omar a ngi na omar a ngi benn xale bi moom toog ci mbedd mi ba omar dikkee ne ko lu tax dawoo xale yëpp daw lu tax dawoo yow mu ne ko ah amiril moomin lu tax may daw man tooñu ma la man defuma la dara te mbedd mi xatul lu tax may daw omar daal di koy jàpp ci loxoom fóon ko ne ko saddaxta wax ko ne ko ku dëggu nga ku ñeme ki Omar bi mu toogee xam ngeen ne at mi nga xam ne mooy at calendrier jullit yi Omar ci xilaafaam la ko rëdd mooy hijriya bi ñuy waxtaan nan la ñuy def ba jullit yi am weer wu ñuy tënku Omar na leen teenoo jël gàddaay gi bi mu jëlee gàddaay gi ca lañ ko mujj def calendrier jullit yi mooy lool Seydina Omar moo dikk fekk Seydina uh, Aboubacar mu ne ko gis naa ne saxaaba yi mokkal alquran ñi ngi faatu nan yaxal alquran yonent Seydina Aboubacar ne ko man nu may defe lu yonent bi di ful woon mu ne ko ah li ma gis daal xalaat la mooy gis naa ne saaba yi mokk na alquran ñu ngi faatu te bu ñëpp faatoo kenn dootul mokkal alquran nan dajale alquran nga bind ko kaamil Seydina Aboubacar soog a ñu bind kaamil Omar yàlla dogal na ku ñeme dëgg la xam ngeen ne yonante bi mu fi nekk dafa waxoon eh, li nga xam ne moo di xusay fatul yamaan ne ko diw sàngam diw sàngam wan ko ab liste bu rëy ne ko ñii ay naafeq la Omar xamoon na lool Omar da daan def bi yonante bi jógee bu kenn faatu day laaj ba xam Xusayfa dem na ci denc ba wala demul bu fa demee mu dem bu demul mu toog këram <coughs> loolu bi mu demee ba toog xilaafa te mas naa dem ba ci mbedd mi mu daw tasee Xusayfa yamaan ne ko Xusayfa poñe ko ne ko ndax yonante bi ci naafeqi la ma boole woon Xusayfa di lox ne ko yonante bi boolewule ci waaye man duma ko waxaat kenn wala omar ci kooram bëccëg yépp da koy woor guddi yépp mu taxaw di ko la doon xalifa bi yonante bi yonante bi boole ko ci al asaratul mu basara mu dem ba toog di laajaat ba xam moom ci naafeq yi la bokk lu bokk kilifa noonu la war a ñemee nangoo dëgg di vérifier ba xam mu ngi ci yoon wi wala nekku ci omar yàlla dogal na <clears throat> ku nekk xamoon na ko yonent bi salaa salaam mas na koo xool ne ko Omar yow seytaane ñemewu la mbedd moo jaar seytaane day daw génn mbedd moom te loolu moom rek moo ko am ci saxaaba yi yonent yi sax am nañu ko amul koo xamante ni fu mu jaar seytaane daw génn fa Omar la ko yàlla mayoon Omar bi yonent bi salaa salaam génnee àdduna moo njëkk a jaayante ak Seydina Aboubacar ne ko Aboubacar tàllalal sa loxo ñu jaayante Aboubacar ne ko ah te ngaa tàllal mu ne ko déedéet yow yonante bi doyloo woon na la ci diineem kon dañ lay doyloo ci sunu àdduna bi Seydina kar toogee xilaafa ca suba ga dafa xëy rek gàddu ëlleeram di dem ca tool yi Omar kar ko ne ko foo jëm mu ne ko ah damay dem tool mu ne ko déedéet yow yaa yor mbiru jullit yi dangay toog ñu xool nun lay jox lu doy sa njaboot ñu jox la ko waaye yow mënatoo dem tool kon kooko xam ngeen ne dëggoo dëgg la Seydina Omar bokk na ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi dafa waxoon ne Omar mooy ki nga xam ne moo moo gën a jub ci ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteel maanaam ñi mu ñi mu àndal mooy ki ci gën a jub mooy saxaaba yi bu nu nettalee noonu mooy koo xamante ni dafa juboon ba dafa nangu dëgg mu dal ci kawam ak ñu dal ci wetam maanaam nit koo xamante ni am na nit ñi ñoo xamante ni dañuy nangu dëgg dal ci seen ñu mën a wax dëgg waaye du nangu ku leen wax dëgg loolu nag du nit ku jub ku jub da nangu dëgg bu la dalee bul dalee ci yow nga nangu ko bu dalee ci keneen nga nangu ko waaye loolu dafa mel ne dafay nuroog wala fi dunoo xàmmeewut ku naqari deret ak ku mën a wax dëgg ak ku doo ku dëggu maanaam nit koo xam daa naqari deret di wax dëgg waaye ku ko wax dëgg mu mer kooku dëggu dafa naqari deret dafa dafa luubu sax waaye du ku jub ku jub mooy buñ la waxee dëgg nga nangu ko boo gis buñ la bu dëgg dalee ci sa kaw nga nangu ko buñ la dalee dëgg nga nangu ko kooku mooy dëgg Seydina Omar noonu la meloon ay mbir yoo xamante ni bu masaana dikk ci moom Seydina Omar <coughs> bokk na ci ñi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñooy làmpi waa àjjana maanaam ñooy làmpi jullit yi maanaam buñ seetee jullit yi leer gi nga xam ne mooy ki nga xam ne kiy tàqale dëgg ak lu dul dëgg Seydina Omar la mooy ki nga xam ne mooy tàqale lu dul dëgg ak dëgg bi mu toogee xilaafa Omar da daan wër ci dëkk bi di xool nit ñi nan la ñuy jaaye nit ñi nan la ñuy def seen garam place yi lan la daana dem sax mas naa dox ba dégg soxna soo xamante ni doom ji day jooy ci guddi gi yu métte métti di jooy soxna si teg euh, ab taal daal di koy taal bi mu ko taalee dikk def ca ndox di naq xale bi xale bi di jooy ndax màkk ñàkk lu mu lekk Seydina Omar daal di dikk ne ko waaw soxna si lan lay sa doom ji di jooy mu ne ko sama doom ji de dafa amul dara lu mu lekk maa ngi nii di ko nax sax teg cin li ci taal bi teg ci ndox waaye dama koy nax rek awma dara lu ma ko jox Omar delluwaat ci këram dem wut fa dugub ak dund bu mu dikk dikk bi mu dikkee mu laaxal xale bi moom ci boppam moo jël teg cin li laaxal ko ba di ko ëf ak sikkim bi am na nañu wax sax ne bi mu koy ëf ci taal bi sikkim bi karo taal baa ngi lakk sikkim nee na mu laaxal ko ba noppi jox ko ne ko xale bi lekk mu tëdd nelaw Omar daal di dem loolu xam ngeen ne ak baax dëgg la am na ñu mas a fekk dégg ñuy mun muni ay xale yu jubut la di naan sàngara ak di juba di Omar daal di dikk bëtt sàkket wi dikk daal di fëgg néeg bi dugg na leen lu ngeen di def nii ñu ne ko dañuy naan Omar na leen li ngeen di def jubul daal di tàmbali leen waar am ku jóg ne ko seen Omar amirul muminin ñun de def na dëng te waaye juum nga ndax alxuraan dane kuy dugg ci kër na nga jaar ci bunt ba te yow da jaar ba noppi alquran aaye na ku taja mooy kuy yëddu nit te yow da yëddu ba xam la ñuy def Omar ne ko waaw wax nga dëgg waaye yéen li ngeen nekk jubul daal dem loolu lépp ci nangoom dëggam la ak ak maanaam bi muy bëgg a faatu dafa woo saxaba yi ne leen man de su ma faatoo na ngeen tànn fukk yi fukki ku ngeen toog rek ne moo leen di jiite kooku baax na ku ngeen toog rek am koo dikk ne ko waaw Abdoulaye sa doom ji doo ko boole ci ñoom ndax moom jàng na te am na xam-xam doo ko boole ci fukki yi mu fekkee waxtaan Omar ne ko ah déedéet loolu nag du am ahlu xataab daal mel na man doy na ci ëllëg bu nii rek la yomal xiyaam man doy na ci loolu wute naag loolu koo xamante ni boo jotee nguur fal sa jabar fal sa rak fal sa doom fal ñëpp waaye Omar dafa teggi doomam ne ko du ci bokk am na suur sax bi ñuy gàddaay bi ñu dikkee xaalis amoon na jamono yi Seydina Omar Omar di fay saxaba yu mag yi mu leen di jox trent mille doomam ji mu koy jox quinze mille nit ñi yëg ko na waa Omar mii li muy def na ko Omar Seyna Omar waaw sa doom ji nga xam ne moom ñetti junni yi ñu koy jox te moom moo ne boroom xam-xam la ku yaru la ku kii Omar ne leen man nan laay yemalee koo xamante ni dafa gàddaay bàyyi alalam yépp màkk ak mbokkam ak koo xamante ni bi muy gàddaay bàyyam moo ko indaale xam nga Seyna Omar Abdullahi bi muy gàddaay booba xale la Omar moo ko indaale ak yaayam doomam bi tamit mayoon na ko yonante bi muy sayyidatuna sa doomam la Absa moomu bi fi Omar jógee moo yore kaamilu alquran bi bi muy bëgg a faatu dafa wax soxna Aysa ne ko ndax dooma may bu ma faatoo ñu denc ma ci barabu yonante bi Aysa ne ko ah place boobu de sama bopp laa ko bàyyi loon waaye comme ñaan nga ko jëlal ma may la loolu da ngay xool saxaaba yi seen baax gi ak Seydina Omar ni mu meloon Seydina Omar doonoon na koo xamante ni tamit ku juboon la koo xamante ni ku juba jub koo xamante ni ñépp xamoon nañ ak juboom ñépp xamoon nañ ak dëggoom ñépp xamoon nañ maandoo dégg ngeen sëñ Tuubaa li nga xam ne li la koy woy ci muqaddimaatu boo demee ci tuxfatul dara in sax wa bi amiril muminina omara xeniya makkaran wa saqan wa xarra yooyu yëpp ay bayit yoo xamante ni sëy bi daf koy jëmale di tagg ak jàmbaaram ki nga xam ne moom moo tàggale woon dëgg ak neen bi mu dikkee rek ci la ñëpp xam ne Omar kat lii mu nekk ku ne xam na xam ngeen ne bi mu tuubagut yàlla natt woon na ko mu dikk ne tey ñëw ci yonent bi salaa salaam ndax dafa amoon kàttan ndax boobu ab jigéenam la dégg ne tuub na muy dikk di xool ci alxuraan bi muy dikk saxaaba yépp danoo tiit ne si yonent bi salaa salaam danoo dikk ne ko ah omara yi ñëw de omar yi ñëw ñëpp tiit ku nekk tiit ndax kàttan yi yonent bi ne bàyyi leen ko bu dikkee ubbi leen ko bunt bi bu dikkee su indee ay ay la fi fekk su indee jàmm dina fekk waaye omar boobu jaaseem la yor ngir bëggoon a faagaaw leen waaye bi mu dikkee yonent bi xool ko naka la gis yonent bi leer gi dikk rek omar daal tiit ba tëdd di ci suuf yonent bi ne ko mënoo gëm yàlla nga tuub dugg ci diine lislaam omar dugg ci diine lislaam li mu liggéeyal lislaam bi muy toog xilaafa yi tamit toog na fukki at ak juróom benn weer moom la nekk ci xilaafa bi lu ci bare bari naafile gi nga xam ne ñu ngi koy gis sax Omar moo ko delloo siwaat moo delloo siwaat naafile gi ndax yonante bi mas nañ leen dajale ñu naafilandoo benn yoon waaye yonante bi aaye ko bi yonante bi demee nag Omar ne nañ indiwaat naafile googu ndax lu jekk la lu rafet la jullit yi nekk benn loolu moo war a doon ittey ñëpp loolu nag boroom xam-xam yi wax na nee nañu Omar li tax mu indiwaat ko mooy xam na ne lislaam kenn du ci dolliwaat dara du sosuwaat moo tax Seydina Omar ne nexmatul biddaa biddaa bu rafet la loolu moo waral xam ne kenn dikkewut kuy atteswaat kuy indiwaat ci diine ji dara Seydina Omar doonoon ku jub koo xamante ni ak maandoom ak waxtaane ko jullit bu nekk war nga koo ki boole koo ki tamit saaba yi ñoom ñépp ñu bëggoon ko ndax ci ñemeeg dëgg bu nu di wax dara ba Omar dikk ñoom ñëpp dañuy koy jox waaye ndax xam ne Omar li muy wax dëgg la ñoom ñëpp ñoo dëgg woon sax saxaaba yi waaye Omar da cee gënoon a ñeme responsabilité jël ko ci kanamu bi muy toog xilaafa bu ñu ko falee dafa dikk daal di wax taxaw ci kanam mbooloo ne ah fal ngeen ma ma jiite leen da ngeen xam ne képp koo xamante ni am nga dëgg te néew doole yaa am dëgg fi man képp koo xam ne da am doole te juboo xamal ne yaa doole ci man. man mii nag dama bëgg feeg maa ngi topp yàlla di am di topp yàlla na ngeen ma topp su ma dëngalee na ngeen ma jubbanti am kenn ku jóg ci saxaba yi na ko Seydina Omar boo dëngalee suñ jaasi ji lan lay jubbantee Seydina Omar ne alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw xeetu yonante bi ci yonante bi am na ci ñoo xamante ni bu ma dëngalee ñu jubbanti ma ak jaasi ji loolu sant yàlla rek Seydina Omar doon dund gu barkeel bi muy faatu dañ ko fekk muy julli ci jàkka ji ñu jam ko ab xeej ci kii bi Omar daal di àggale julli bi ci la faatoo faatu goo xamante ni bi muy faatu dafa wax ne yàlla bu yàlla faatu sama bakkan bi bu mu demee ci bakkan bu ko ab jullit rey bu may faatu na ma yéefar ab yéefar rey nga xam ne sawara lay tàbbi waaye bëgguma jullit def njuumte ba rey ma di tàbbi ëllëg sawara koo xam ngeen ne ku baax la ku jub koo xamante ni saxaaba yi lii rek moo tax ñu war leen fàttaliku ñoom ñoo xare woon badar yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ba ñuy jaayante ne leen yàlla gërëm na leen mënatu leen a def loo xamante ni sunu borom da leen di bindal bàkkaar laqad radiyallahu anil muminina is yu bàyyi xool na xoona taxta sajara ñoom yàlla gërëm na leen sëpp na leen xool leen ne leen lu leen neex def leen ko kenn mënatu alak alkandite mënatu fekk ci yéen Seydina Omar ngi noonu koy waxtaane mu doon jàmbaar doon ñaareelu xalifa bi bi sallallahu alayhi wa sallam yal na leen yàlla dolli ngërëm te dolli leen xiiwal te yàlla sëmbartal nu ci diine ji ba ñu ni tamit ñu roy saxaaba yi ndax sëñ Tuubaa dafa xam ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam yal na yàlla defal ak njub ñu topp saxaaba yi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp seen mboor bañ koo jàdd assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu